mais mais man xam nga foofu Adouz da wax bala maa ñëw ci abu abu yow fi ñu gis naa nga xaw a jënd glace xam naa plainte ngay dawaale mais li ma bëgg a wax mooy euh, je suis obligé de que si c'est des que ce sont des questions que je pose parce que Adouz man aw ko. aw ma benn wéeruwaay. ah am nga wéeruwaay man aw benn parapluie. mais Aziz fee di Pape ñoom am nañ Pape tamit <laughs> ni ñu amee ñi amee Adouz ñoom it am nañ Pape Alé buy nekk ci ruq yi ci lal yi ci néeg amical ce n'est nañ ko bàyyi nouveau Pape nañ ko bàyyi mu déroulé parce que Pape xam nga yàlla bu ma mel ni Abou Diallo nee na non noonu la Pape euh, Alé Adus mooy <laughs> tamit parce que Pape Alé Niang ni ñuy def xam nga li tax li ñuy def ni Adus ñoom niñ doon defalee sur le plat Pape Alé ah, mu génn ah. di ñu wax néegu juge yi lalu juge yi fi ñuy ah. ndékkee fa ñuy añee kii toog na diw rencontré na diw nekk au cœur mais su fekkente ne nii ci addis ci ay investigation tamit ak ci système ñi nga xam ne ñoo ko parce que non non non xam nga lu tax dama waxoon ne la diggante bi xam nga diggante dafa bari diggante bi dafa bari ñu ñu jàpp ci côté Ousmane Sonko ay journalistes dafa leen contrôle judiciaire ba nu génnee danoo reconvertir u nekk ci biir kër Ousmane Sonko di liggéey pour ñeneen xam nga lu parce que loolooy seen condition xam nga lu tax dama ne ñi ñu génnee ñu bari mm. l'affaire Ousmane Sonko bari na fi journalistes yu ñu convoqué dig ngoon ngoon gi ñu négocier ñu bàyyi leen ñu dem ah, ñibbi séeréer mais li ñu teg comme garantie mooy dootuñu nekkati ci wax ci xam nga tax yeneen ñi ñu génnee ñibbi ñibbisiwaat mhm. dañoo ñibbisiwaat nekkaat ci biir di joxe yenn information yi mm. ñenn ñi aussi bi ñu xoolee ni ni dossier Ousmane Sonko bi fi ñu jëm mënul nekk candidat données yi ñu joxe woon nangam nangam dañoo reconvertir dem outil parce que stagiaire de prime la ñu woon